asalaamualeykum asalaamualeykum salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a ñu seetaan jërëjëf démbaloon altine la premier tey la talaata le deux ñaareelu weer ñaareelu bés mu nekk mbégte ak contentement démb nag seetaan ngeen maître Ablaye Wade ba mu fa jugee nag gis ngeen ki nga xam ne moom mooy El Hadj Malick euh, euh, Lan Menge gis ngeen Moustapha Diop tey nag seen programme bu bees bi li ngeen di gis nag moom mooy maître euh, Madické Niang dina ñëw ci taxawaayu Jeune Afrique. bu ci jógee nag dinañ indi ki nga xam ne mooy Idrissa Seck ma ngay lëmbay banlieue ba ba fu mu ne ni banlieue ba am na problème coow bu mag a fa lu tax ak li ko waral boo ñu toppee di ko xam Yaya Jammeh bi taxaw temm ne booy jine ci boppam doomam la da jël ci boppam bàyyi ko ci pale bi ndax kéemtaan yu koy wan jar na koo jàpp te du ko mus a bàyyi mbokk yi boo xoolee loolu am na beneen boo xam ne mooy doon buñaa ci diggante bi dinañ ci ñëw ngeen a xam ci boppam taxawaayam ci Jeune Afrique ak na la ko gisee loolu mooy suñu programme tey ñuy am mbégte ak bi ki nga xam ne moom mooy tonton mag moom moo nekk ca euh, bopp ba dend ak ki nga xam ne mooy doomu ndeyam Pape Samba Thiam ñu koy gërëm ak Abdoul Aziz Thiam mu yekk ci son bi yaawo Gervais mention spéciale ñaari caméra la yor di ko ngarale large ak serré ba mu mot sëkk ñuy gërëm Dia lumière ak leuse mi ci jàpp nuyu nañ père Assane ci sécurité bi Kara sécurité Kouthia Show di gërëm tamit Abdoul Aziz euh, ki nga xam ne nag mooy euh, Moustapha Jamil Ba yor protocole ak dédicace di nuyu tamit tutul ci ambiance bu yaatu ci képp koo xam ne nag Mouhamed Sall nekk nag taalibe Serigne Samba Touré teew fi tey nag ngir woon na waxtaan ak ñun ci yeneen mbir yoo xam ne du ci mbiru Kouthia Show gërëm nañ ko ci jaar bi xool ni liggéey Kouthia Show di tëddee ñu ko gërëm ak mboolem taalibe boo xam ne taalibe Serigne Samba Touré nga mbokk am nañu contentement bu yaatu ci képp koo xam ne yaa ngi liggéey fii ci Télé Futur li ñuy def nag moom mooy xamal leen ne dañoo am gan gu bees ndax sponsor yi macha allah ñi a sous région bi boo demee Burkina Faso boo demee Gambie boo demee Mali da ko fay gis mu nekk ci euh, loo xam ne ci réew mi ñëpp dañ koy xàmme rawatina nag stylistes si ak couturiers yi tailleurs yi ñoom ñëpp dañ koy jënd pour mën a xam lan moo nekk ci jaspora bi lan moo nekk au temps présent ci mode ak li nga xam ne moom mooy style moo tax tey dañoo ñëw ne ñoom daal gis nañu ne diaspora bi dañoo bëgg émission Kouthia Show diaspora bi dañoo sopp émission Kouthia Show léegi nag visibilité bi dañu bëgg def seen tour bi nga xam ne mooy diaspora ànd li nga xam ne mooy diaspora ànd tamit li nga xam xam ne mooy Kouthia pour gën a mën a génn seen mbir magasin bi nag am na façon ñaw ak bu nekk tailleur yi clients yi ñawkat yi couturier yi ñu nekk ci sous région bi il ne faut lii nga xam ne mooy magasin bi di ko am day tax say client di xam ne yaa ngi au diapason de la mode kon diapason ak japa diaspora bu ñu àndee rek dafay ànd neex donc je disais que c'est euh, euh, c'est une magasine diaspora euh, magazine de mode et de style à avoir dans vos tiroirs et dans vos ateliers pour mieux perfectionner vos modèles et vos collection de style mbokk yi nag ñuy am mbégte contentement tey lii gërëm tamit sponsors yi nga xam ne yëpp teew nañu mbay mbay sama baat bi ñoragul gaawal gaawal baat bi dafa ñoragul. bu ko fecc di sa gaa. loolu mooy lan. jàppal si sa ndiga. <laughs> bul daw bul daw bul daw tegal sponsor programme bi dafa eh, eh, eh. serré. Ina Diawara. moom laa doon waaj moom laa wax diaspora Ina. eh d' accord Ina Diawara. Ina tegal loolu xanaa xanaa damay vérifier samay modèle. ah gaawal tamit taal mbay diaspora xam nga kii. kii nii xam nga ko. dinaa jaawara la Gambie eh. la Gambie sax am na diaspora. wii ma suñuy dem si jàngu sëñ Habib bi. waaw bii la ñuy sol. bii bii la ñuy sol. wuy ma la ñuy sol bi may sol mu ngi ci prochain numéro bi bul waxagum dafal yooyu ay noppil ak wax yow boo da ngay dégg ay secret ko wax. bàyyi li ngay def bi nag. Eh, bàyyi loolu. bàyyi suñuy dem si li ngay def yaa ngi commencé def ay affaire dóor yow mooy ay def dafa sa liggéey rangé. Irina. <laughs> ii naa jaawara miss moom laa koy ñawal bii laa koy ñawal miss très bien yow moom koy diaspora bi ku ko jënd di nga xam li xew yëpp way bii yii sama xolal baat bi xolal démb xama déma ñorul ah. déma boo xoolee ab Wade ko ñorul mais dama ko forcé tey macha allah wuy ma nga ko xaaral ma sumi lu ne di bii mooy raqam wuy ma bii naan nga ko yow ma ne xolal naan nga ko démb moo ma faj booy li ma la wax du dañ moo ma faj wuy ma xam nga xam nga 45 ans nga waroon am. waaw léegi doublé nañ ko. 5 ans. merci jërëjëf sa yéene rafet man boo duggee mbuus bi rek sama gémmiñ gi day commencé tooy. ginaar sama gémmiñ gi day commencé tooy. viande viande arom 3 lions viande. viande assez. bi la ouh poulet le poulet le poulet le poulet. dégg naa la diaspora Ina Diawara bii bii lay bii ah mais Ina ko ku dem mu toggal la ceebu ceebu Gambie kay. Ah. bii nag moom mooy jën bi. kon 3 arom arom 3 lions macha allah. bii moom. Baara Moussa mu tardé. si kër maa aussi. waaw noppil bàyyi yi ngay def liggéeyal. baax na ñu ngi lay yàq de. <laughs> Euh, bi léegi da koy am si sachet. am mu tar si sachet. bu yàggee fii fii. dégg naa dañ koy dëbb. Eh, eh, eh. dañ koy am sumbulaa mooy nokkos genre genre xam nga sumbulaa. Mm. netatu acca. ak xasaw. te neex te neex. dégg naa nag lu forox. lu neex lu forox si cin rek. waaw baaramuso. <laughs> baaramuso bii mooy baaramuso kii euh, poudre poudre bi. diwtiir bi nag am na démb ku ma ko laaj. diwtiir baa nii. nee na jëkkëram. lii mooy toj na dëgg de. ma ma ne. allahu ndey maram sekk madame Ba. Ah. nee na jëkkëram lu amul tiir du ko lekk. soo sax da ci def tiir ca Fass Mbaaw. si Kapa Mbaaw da ngaa war a créé fi ñuy lekk jee lekk lekk jee ah. ginaar kii kii kii jeex voilà. kaani gaa ngi noonu tegal yëpp benn yoon booy gi kaani gi poobar gi eh, alhamdulilah rabbil alamin léegi damay woote te du ma fay lu sax <laughs> ku lay wat amet ban amet mooy jaxaw ah jaxaw la nekk ah, baax na baax sama ganaal yaa ngi commencé def ci rax <laughs> yaa ngi ci commencé def lu ci rax de ina waaw ina jaa wala waa léegi mbay bu ko fecc ni saga mbay jàppal ci Eh, sama yoon nekku si. grand sama yoon nekku si laa la wax ma man man man damaa solo de xam nga chaque jour fi mu nii su ma nekkee sama leer rek nga nga may déconcentré sama yoon si wa weeret waxal waxal. xamuloo dara man waxal waxal. xamuloo ko sama yoon nekk si sëgguma laa la wax defuma dara sëgguma yow yow da ngaa dégg la maa def waaye grand démb li ma wax neexuma de affaire euh, sekk xaw ma mën nga maa wax sekku. ma wax wala temps yi ci kër gi. xool xoolal xam nga démb nee nga ma sekku. xam nga xam démb ne nga ma ginaar nga wax ma sekk bëgg naa nga wax ma kanaara bëgg naa nga wax ma jinax bëgg naa nga wax ma rabu àll yëpp bëgg naa waaye bu loolu moo ko wax de dégg ginaar bu rekkuñu ko ko wax waaw bëgg moo ko wax de bëgguma ko waaw ey ey ku la wax loolu li li ma jaman ba la ko wax ma ne yow la vendredi la woon yow la yow ma ne mbay yaa yor xaalis bëri am na lu xew de fële waaw yow yow la mbay la mbay la ko jël mbayoo sàcc ay mbay bàyyi Saliou Ndoye yàlla

bésam ba danañ ca ñëw ak alaaji Cerno Hamdu Aw xalif bu Celaaw dëkk ca booru Njum ziar nañ ko suñu papa alaaji Ousmane Ndiaye eh, di waaliyu Kaamin dëkk ci HLM Angle Mousse ak soxnaam Adja Mam Bousso Cissé la grande commerçante ñoom nag eh, ñu ngi leen di gërëm di la sant rawatina képp koo xam ne yaa ngi ca dëkk cosaanam di foofu ca Ngaay Mexe nuyu nañ alaaji Basiru Baara Mbàkke nekk ci HLM Géejawaay di eh, sëriñu ki nga xam ne mooy Go Fall Abdou tamit mu ngi koy ziare ñu ko fan bu gudd ak wér-gu-yaram ak jotaay boo xam ne jotaayu teranga ak xasaayit ak yoonu sëriñ Touba ko ci yàlla bàyyi mu nekk nekk ca ah, xale yi nga xam ne wax dëgg yàlla dañ koo jox bopp moom Serigne Bassirou Bara Mbacké Serigne Abo Mbacké ibnu Serigne Fallou fan bu gudd ak wér-gu-yaram di ko wax nag sëñ bi ndigal ma dem ci mati jox ma li nga xam moom laa yóbbante woon pour mu dem ci ko Serigne Mbaye Sy Mansour ñu ngi koy ñaanal fan ak wér gu jàmm gu wér ak wér-gu-yaram yàlla bàyyi ko ah, dëgg yàlla ak sagom ak taxawaayam mu dëgër lool Serigne Mbaye Sy Mansour yàlla yàlla guddal fanam bàyyi ko fan bu gudd lool lool lool ak xaritam eh, imam Tamsir Sakho doom doom ji Ousmane Sakho nuyu nañ ko di nuyu tamit Serigne Maodo Sy bu maam Abdoul Aziz Sy rabiyallahu taala anhu di nuyu tamit Chérif Ahmed Tidiane Aïdara jolof jolof ñu koy nuyu dëkk nag ca dëkk ca jolof ñu koy nuyu ak ñaari soxnam Sadio ak Fatima di nuyu bu baax ki nga xam ne nag mooy Serigne Maodo Thierno Sall nekk ci Sicap Mbao ak ki nga xam ne moo fi nekkoon cardinal di Théodore Adrien Sarr yal na yàlla dëggal taxawaayam ci jàngu bi lépp lu mu ñaan ci yoonu jàngu bi yàlla defal ko ko maître Fatima Fall di suñu marraine di suñu yaay jigéen ju am jom di fidèle am coloré yal yàlla saxal digganteem ak lépp loo xam ne nit la te mu bañ a am wor ndax moom ci boppam du wor warkat euh, ci boppam jaaru sax ci même yoon bi di maître Fatima Fall ku mun a téye doomu ba tey ci parti euh, démocratique sénégalais ba mu fa nekkee ba tey jugu fa li ko fa bàyyi li nga xam ne nag mooy fidélité dëgëral loolu nga xam ne mooy jikkoom di ko aaral ñaanal fan bu tamit di bi nga xam ne moom mooy euh, Thierno Mamadou Adama Gaye di xalif de Thierno Adama Gaye ca ñànka edi ak mboolem xam ne yaa ngi dëkk ca dëkk boobu fàttewuñ leen waaye di nuyu tamit Adja Binta Gaye madame Dia ak umu umata umu salamata Dia Khady Sall ay doomam lañu nen na Ndiaye nekk ca Dakar Liberté 6 extension di nuyu tamit ki nga xam ne mooy Adja Hawa Dia Adja Aysata Adama Gaye ak Adja Fati Thierno euh, Gaye ñoom ñëpp nag ña nga ca ñànk idi suñu papa ñu ngi koy nuyu di bàyyi Aliou Diagne ancien combattant alaaji Langori euh, Gaye alaaji Mamadou euh, ñang ak bàyyi Aliou Ndiaye Tahirou ak Mamadou Ali Birane ñang ñoom ñëpp nag ña nga ca ñànk idi Thierno Mame Fama Gaye ñoom ñu ngi ca ñànk idi di nuyu suñu papa Serigne Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Tivaouane ak suñu yaay booy di soxna Adja Kiné Sy bu Serigne Cheikh ci turu Cheikh Ahmed Tidiane Sy euh, Al Maktoum ñu leen di ñaan ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ñoom ñooy suñu gendarme ci l'islam ndax ñooy wér di ba réew mi am kaaraange ak sécurité ak jàmm ji nga xam ne moom la suñu ay seen waajur bàyyoon fii ñu koy doxal yal yàlla bàyyi ci yoonu jàmm teral leen ci li nga xam ne mooy yoonu l'islam mooy yokk seen fan bu gudd bàyyi leen ak seen sago yal na yàlla defal jàmm waaye di nuyu tamit ki nga xam ne sama xarit la wax naa leen ko muy sama xarit boo xam ne nag di doom ci alaaji Mamadou Lamine Ba di ki nga xam ne nag moom mooy alaaji Seydou Nourou Ba nekk foofu ca Pate Gallo moom nag wax dëgg yàlla wax naa leen ci kanam tuuti dinaa ñëw wax ne dafa am buy julli buggu sax weñ romb ko wala bul bugg buggul sax yoo di romb lu romb rek day taxaw dagg julli ja wax ak loolu soog a kooku nag kaf sama diggante moom maa ngi koy nuyu bu baax di alaaji Seydou Nourou Ba di chef nekk ca Pate Gallo euh, tontom ak ak complicité Pape Samba Thiam waaye ci neexaayu baat ba ki nga xam ne mooy tax muy neex muy Abdoul Aziz Thiandoum waaye caméra bi naan fàng ba ñu wane sa kanam di yaaw a gervé bu leen fàtte ne jaspora mu ngi ci biir kiosque ki foo dem am ko en Afrique partout Mali Burkina Faso Gabon pour être à la mode de la diaspora il faut lire diaspora et découvrir diaspora <laughs> maître Madické Niang ci li nga xam ne moom la waa Jeune Afrique def ñu seeti maître Madické Niang ci kaddu yi nga xam ne yëkkati ne ko tegal ko foofu maître Madické Niang taalibi Serigne tubaab parti démocratique sénégalais mooy ñëw tey wax ak askan wi. ndar ndar baa nge maître Madické Niang ndar ndar baa nge jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi sant yàlla parce que tey mettit rek moo tax may ñoo di wax looloo tax nag wax dëgg yàlla damay xamal ne tey yoonu Serigne Touba di yoon boo xam ne yoon bu yàgg la tey ay journaliste yu tekkiwul tus tekkiwul dara di jël jëmu Serigne Touba di ci def loo xam ne naka su dul noonu ñun dañu koy mettit lu ñu nga xam ne ay doomu murid nañu ay doomu jullit nañu ay taalibi Serigne Touba nañu tey Afrique Europe Sénégal adduna bi ñëpp ñoo. ñoo ñoo sëngeem ndax méttit lii nga xam ne moom la journaliste yi def mettre nag ki nga xam ne moom mooy maître Ablaye Wade ndax damay wax ci cadre politique ba pare wax ci cadre murit maître Ablaye Wade nee na ma tolof tolof ak gàllankoor rek moo tax ñëwul waaye ci kàddum laay waxee ne metti na ko lool ndax lii bu fekkoon moom moo aye bu fekkoon moo toog tey ci jal bi à ah, Jeune Afrique dinañ am problème boo xam ne duñu xam fuñ koy waxee waaye nag di wax ne ñun ñii nga xam ne ñooy taalibe yi di militant yi zahir bi ñun ñoo koy dox baatin bi bàyyi nañ ko suñu borom ak sëriñ tuubaa ndax dina ko leeral képp koo xam ne nag sa doom war a sa mbokk dafay liggéeyee bu yeboo nga ne ko nag mu bàyyi ndax li nga xam ne mooy ñëw ak fu mu ñëwee ndax Serigne Touba du teg kenn loo xam ne lu ñaa la waaye dinañ gis ne loolu nga xam ne moo la doon suqali ba ñu mun a payoor ah su ne dinañ ci te dina ma jaaxal ndax Serigne Touba kenn du ko tooñ ñu koy mettit lu nag. di ko kaas di ko am loo xam ne wax dëgg yàlla tey suñu suñu suñu suñu doole ak suñu lépp def nañ ko ci ndax li nga xam ne moom la waa sën Afrique def dafa ñaaw di wax nag gouvernement Sénégal nag dafa jot bu doon maay Macky du ma toog di xaar waa ji ci boppam laay fekk ci bureau mbëkk ko door ko kurfañ matt nopp yi kaata ko ay waay Ablaye manqué nga ñu ay Ablaye bu la fi fekkoon tey yow mi nga xam ne ab taalibe murit nga yow bi nga xam ne ab murit nga dafa dëggu ci yow ay waay Ablaye bu la fi fekkoon Jeune Afrique dee ndax xam naa ne jugub Ablaye Wade bërëbu Ablaye Wade ba teg tànk jeego ndax ku taxaw ak Sarkozy di ko xas dafaale ab simple journaliste boo xam ne yow ci ay musiba ngay bind waaye nag bépp sénégalais boo xam ne jàppoon nga ne Jeune Afrique mu ngi sa kër bu yóbboo nga génn ko ndax musiba nga sab sa kër ñi ko jënd ak ñi ko jëndoon dent ko ak ñi nga xam ne yor yoroon nañ ko sax te bindul ci loolu bu yeboo ñu génn ko seen kër ndax musiba dugg na seen kër ndax nag xam ngeen ne Serigne Touba ay yoonam ak ay sëkkëram xajul ci benn doomu aadama te ñooñu def nañu lu ñaaw waaye nag di wax ci politique nag ndax jot na Macky looy xaar looy xaar démarque-toi attaque leen parce que sa tekk bi nga tekk nii du yoon da nga war a jóg nag def ak waa seen Afrique ñoom ñooy ñan ki ko jiite jullit la kee bon kee bokk ban ki ko def moo bokk ban ba xam fi mu naan nekk mu bon fa waaye Macky defal affaire gentleman comme que bu fekkoon pa pa pa pa pa jinne di Ablaye Wade day jóg daagu dem defante ak ñoom yow booy nga demal fi ñu nekk wax ak ñoom poñe dóor mbëkk boo demee sax Touba ñu àll kuuru Baye Fall nga yenu ko dem dóor dara du la ci fekk nag ndax ñii ku leen def lu ko sudul noonu yàlla mooy àtte xaritu yàlla kenn du ko def noonu kon nag ñun. dañuy am mbégte ak contentement di wane suñu naqar ci loolu ndax mbégte boobu mooy wane naka fierté la ñun ñun amuñu ñu lu ñuy tiit waaye ku nekk seen Afrique moo am looy tiit tey Macky da ngay mën a jàppee rek di tëjee <laughs> da ngay mën a jàppee ak tëjee am na ñoo mën a jàpp ne leen ràpp tëj nag même bu dul ay sénégalais nag jëf ko war a nga dox ko ndax xam naa ne gaaw nga ci ràpp tëj journal bi nag ràpp ko tëj mu bañ a dugg ci réew mi comme que boo jàppee nit na ko tëj journal nag du wax du lekk du naan du nooyi bu mu dugg ci réew mi bu ñëwee ba ci aéroport nga ne ko ràpp tëj ku ko jaay nga na ko ràpp tëj ku ko yër bët nga na ko ràpp tëj ku ko xulli nga ne ko ràpp tëj wan ma ma xool nga ne ko ràpp ku ciy wax wax joo xam ne dafa mel ne ku ànd ak journaliste nga ne ko ràpp tëj loolu moo gën ràpp tëj koo xam ne tëjul ràppul kon eh ràpp tëj make ràpp tëj eh rap tëj Macky eh rap eh, yow Macky rap tëj xam nga loo rap Macky rap ku ko yër eh rap yow ku ko xool eh rap tëj xam nga loo rap Macky rap loo rap am nga ko Gambia maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen gërëm wax ne xibaar la ndax léegi su ma diggante ak yéen ay journaliste ñu nekk di wax naka sulu noonu su ma drapeau bi boo xoolee am na xonka am na weex am na bula am na bu werta ay weex dox ci diggante bi lii nga xam ne laa bëgg mooy Sénégal dañu yaakaar ne Gambie dëkk bu ndaw la dañu yaakaar ne Gambie conscience la war a Tambacounda war a seen dëkk yu ndaw yi loolu du am because parce que président Macky Sall dafa bàyyi Sidi Bayo nekk ci dëkkam ñu dem ci télé bu leen neex waa di ma wax lu ko neex di ma yàq lu nekk mu ko wax suma gouvernement. Macky Sall bàyyi ko mu def lu ko ne waa wax na Yaya Jammeh saxare katu nit la lu nekk mu wax ma ko because di yaxa suma der ma yónni suma ambassadeur na waxal Macky mu yónnee ma waa ndax munul bàyyi suma Dakar dem ci Dakar Sénégal foofu nga xam ne because seen télévision yi dafa gën a ba Sudan dafa gën a ba Atlanta ba Los Angeles Gambia yi nekk ci bi dañu ko di lu xam ne Yaya Jammeh am na koo xam ne mu ngi yaxa deram te ndax télé Gambie Gambie la waaye télé yu bari yu nekk Sénégal dafa buddi frontière dafa ko bona di wax suma politique because bi ma ko ma kool ko da waa monsieur Sala yow laa wax suma waa jooju tax di yàq suma dëkk der laa bëgg nga yónnee ma mu ne ma sa démocratie ma droit de l'homme jàppal fële ma ne goom affaire droit de la loolu dafa am doxalin nit du yàq sa der dem ci dëkk jàmbur taxaw fa di yàq sa der nga bàyyi ko mu wax lu ko neex booy jina dugg suma daka ma ko ko delloo booy jine booy jine du ko delloo parce que because du tax du ma delloo booy jine koo xam ne bu la neexee nga nekk si ndax léegi bu la neexee nga nekk kaña bu la neexee nga nekk mbët bu la neexee nga nekk gunóor te ku tukki sa ginnaaw tukki si ginnaaw ñu reer sa ginnaaw fii laa jugee dem tukki am ñu def coup d'état sama ginnaaw bu ko def waaye léegi soo amee booy jinne doo ko tee su ko defee booy jinne ci boppam dafa lay wan dafa lay wax lu xam ne du dañ ndax man dama bëgg laaj ko because lan moo tax mu taamu Gambia maala maala ala ma la caara kaara la barka la maala bàyyi ko bul ko yeew maala tax ko teg ko fi taxawal ni yes yes because it's in the people and that is eh naa def yow. Ah. da nga ah. yow yaa dofloo Macky Sall. waaw da nga yow foo daga si Sénégal. Ah. yow yaa nekk actualité journal yëpp war na yow. <laughs> waaw da nga nekk gëree de. yow bu la dara loo tiit. jàpp ma duma la rey. duma la def dara. dama waxoon fii Gambia ku fi sàcca ñu daga sa loxo. ku rey nit ñu rey la. Oh. ma yow da nga ma ne xale bu ndaw tuuti nii. mu doon sax liibar nga yëngal gouvernement Sénégal. sama maam moo ma ko ñaanaloon quoi. ah yow da ngay da ngay da ngay nekk si ndax. waaw. bi lay bala ñu ngi ah bala ñu ah, sa cuukal bu ndaw bi ndaka ni nga amee xam-xam. léegi ma xool dama ko dégg rek gisu ma ko dama bëgg nga seey. computi daga wulata kuma rofof hey la ilaha illallah wa eh boye eh, genata eh la ilaha illallah yow doo nit xale bu ndaw nga jomal gouvernement Sénégal oh. Macky Sall ñàkk na loxo xam nga lu tax ma lay soxla léegi xamoon na la dama lay wax li ma lay doye ah. su fekkee def nga ah. because ma gis na affaire bi baax na xam nga man Gambia dafa am xam ne bëgguñu ma. waaw su loolu moo tax gis nga dama. Eh, président bu taxaw nga joomal ma la bëgg a jël def la suma sécurité because suma dem boo gisee naka sulu nga ne ma yaa bul dem fii baaw dégg man yoo xam ne xamam de munoo ma nappa léegi ma seeyal. mun naa jékki-jékki ma seey. bul ma def dinaa de. bul ma def dinaa. bul ma def onko bul ma def mbonaat bon ma seey ma xool dégg nga koy kaña eh defal ma ma seey ma xool. mu xool <laughs> eh, eh, booy eh booy jine génnewaat ma booy jine eh génnewaat ma booy jine bul ma seeyal booy jine booy jine génnewaat ma. <laughs> waa ji ne lala walana alhamdulilah rabbil alamin booy doonin laa bi ma duggee si suuf gis naa ñu <laughs> booy doonin yoo dof moo la bàyyi xam nga lu ma la def yaa naka suma ministre défense ak ministre sécurité yow léegi lu ma bugga dem fu dem yaa ma àndal yow booy foo jege xamam grand kii Niger laa jóge jóge man Nigerien laa. waaw nga. waaw yaa ngi tudd xoolal. booy jaame. Uh-huh. jina jaame. Uh-huh. yooyu léegi def naa la nga jaame. <laughs> wuy ma bul ma war. déedéet because ne seen people xam nga jine. seconde seconde ji nga jomal na ma. xam buuru rap waaye man malaaka soo ma defee leneen ku sugul li nga def nii bul fa xaw danga ma tiital de. xoolal nu mu demee. est-ce doo doo doo def leneen lu ko. ah waxuma nga seeyal ma nga toog fii ci gouvernement bi. waaw dama la rey. boo ma jéemee rey su ma la jékkoon dama la rey parce que ku bëgg a rey nit. bàyyi foo jàngee affaire bi. Djiné. Ah? seconde seconde. boy dina joomal nga nga ma ndéeg sikondik sikondik dina nga ma ndéeg ay dina joomal nga ma mbégte ak contentement wax na leen ko Diaspora magasin la boo xam ne mode et vie la euh, bépp tailleur wara a wara coutrier wara couturier koo xam ne styliste nga rawatina nag euh, ci biir Sénégal tailleur yi nekk ci banlieue bi ak ci région yi mën ngeen ko génn jëndi ndax euh, manchel bi génn na li nga xam ne magasin bi génn na donc li am solo moom mooy ngeen fexe ba xaw ñëw yi léegi nag ki ñu def nag ci couverture bi Ina Diawara Ina Diawara Gambie la dëkk Gambienne la waaye tamit magazine bi mën nga ko am Gambie Euh, mun nga ko am Mali mun nga ko am Niger mun ngoo ko am ci sous région bi yëpp ci zone UMOA ak CEDEAO boo fa demee di nga am diaspora bi génn na waaye nag euh, sénégalais yi ci boppam ñu ñaan ñu njëkk ko jënd ndax euh, créa création ak ñaw modd xeet am na tamit li ci gën a li ci gën a doy waar mooy dafa am ay tendance couleur yu doy waar loo xam ne moom mooy commencé ci février mars Euh, ba avril mode yoo xam ne du xeewi dañ koo créer fii 3 mois 4 mois 6 mois lépp ngi ci biir waaye nag beneen magazine buy ñëwaat tamit dina indiwaat yeneen xeet kon allez le chercher euh, votre magazine euh, mode et style diaspora partout en Afrique sous-région Mali Guinée Guinée Conakry Gambie avec jaspora vous êtes au diapason de la mode kon nag ba tey ñu ànd ak Strong Check meew bi nga xam ne démb bi sama baat bi deewee bi ma ko naanee ci la xawaat ñor lii nga xam ne mooy moutarde bi bi ma ko lekkee démb ak nen da ko togg mu gën a ñor kaani gi bi moo tax ma tisooli lii nga xam ne mooy baaramusa poudre bi moo tax ñam bi saf ba nga gën a mën a amaat moom mooy euh, diwtiir nga xam ne nag madame Ba madame Ndeye madame Seck ci suppu kanje ba waa Sikamba yëpp di nga xam ne moom mooy euh, suul beeg bëggëj bi yëpp ñoom sax bëggëj ñu ngi koy préparé kon sponsors yi macha allah ñu leen di gërëm di leen sant ci seen taxawaay waaye di am mbégte contentement di ziar Serigne Samba Touré moom mi nga xam ne nag day def gàmmum sixième édition samedi le ca sanca ba njóobeen Rufisque ñu koy yëgal nag di nit ku yàlla baaxal ñu koy nuyu di ko gërëm di ko sant ki nga xam ne mooy coordonnateur bi di Mohamed Sall moom ci boppam mu ngi fi teew ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ndax bés ba dañ fay maye deret maye deret nag euh, ci gàmmu euh, defe naa nag euh, waxtaan bi nag ki nga xam ne moom mooy borom bés bi di sëriñ Samba Touré moom ci boppam moo koy def ñu koy gërëm di ko sant waaye di tamit bu baax sëriñ Habib Gaye mu xadamu sëriñ Mansour si moom tamit daf ñu invité le février foofu sa jaxaaw route de base en face këram waxtaan bu sëriñ ma maam Malick si bu sëriñ Mansour si moo ko def euh, lii nag dafa am solo trop parce que émission bi moo toll foo xam ne wax dëgg yàlla kilifa diine yi lañ ciy bàyyi kon ñu ci déggaale li nga xam ne xeetu euh, gàmm la da ci am solo ñu leen ci gërëm di leen sant waaye nag kóllëre gi ñu am ak ñoom moo tax nag ñu may leen lii ñu leen di gërëm di leen sant ci seen teewaay di am mbégte contentement ci képp koo xam ne yaa ngi ñuy bàyyi xel sëriñ Moustapha amaar nekk ca Thiès ñu koy gërëm Adja Dieynaba Ndiaye euh, Euh, di euh, suñu yaay ñu ngi koy nuyu ak Daouda Dem nekk ca Zik FM ñu ngi koy gërëm bu baax ak mbooleem euh, ñi nekk ca Zik FM te nekk ci li nga xam ne mooy trafic suñu ay xarañ yàlla yàlla defal jàmm di nuyu tamit waa Fisel Mbadaan yëpp plus particulièrement maman Sadio Niane de la part de Ndeye Sène madame Diouf ñu koy nuyu bu baax moom madame Diouf di nag chéri suñu xarit boobu Diouf nekk ca États-Unis yàlla na ko yàlla defal jàmm joyeux anniversaire à Mourou Faye maître moom tamit xam naa ne tamit ku baax la des fois boo duggee diaspora sax dañ ko ci gis moom ñu koy nuyu bu baax Modou Faye di ko wax joyeux anniversaire de la part de tous les terres ak l'équipe euh, yi nga xam ne nag ñooy ànd ak yow di la ñaanal fan bu gudd gu yaram waaye kii nga xam ne nag sama xarit la koy wax alaaji Seydou Nourou Ba di chef religieux nekk ca Pato moom nag euh, di doom ci ki nga xam ne moom alaaji Mamadou Lamine Ba ñu ngi koy ziar ziar bu wér di am mbégte contentement samedi le mars mooy doon li nga xam ne mooy bés bi nga xam ne moom lay def mbiram euh, dimanche officiel dimanche moom alaaji Mamadou Lamine Ba ki nga xam ne mooy alaaji Seydou Nourou Ba moo koy def kooku nag dafa sab xorom ba xorom bu balaa may dem danaa leen ñamal moom ci boppam jullim dafa spécial te da ko teg ci yoon ñu dem nag seeti ki nga xam ne mooy Idrissa Seck Idrissa Seck nag tey presque bi ñëpp nee nañ moo lëmbee banlieue ba ba Abdou Karim Sall bi nga xam ne moo nekk ARTP dafa jaxasoo bopp bi ëlbatuku ndax jaar-jaar bi nga xam ne daf ko jaar que Siri euh, Serigne Sidi Alxuraan bi nekk ci Géejawaay te am mbooloo bu takku boo xam ne ñoo ko gëm te déggal ko jaar ba fa Idriss Seck jaar nag yëngal na banlieue ba yëngal APR Idriss Seck ngay tontu ay tontu yu leer jëmale ci wax jooju. njiitu réew mi yaay borom Cees Idrissa njiitu réew mi yaay borom Cees ni Idrissa ni njiitu réew mi yaay borom Cees waaw ni Idrissa ni njiitu réew mi yaay borom Cees Idrissa njiitu réew mi yaay borom Cees Idrissa njiitu réew mi yaay borom Cees Idrissa njiitu réew mi yaay borom Cees jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi leen di nuyu maa ngi leen maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di am mbégte ak contentement ndax soo gisee coow li bëri sax fan yii yëpp dama commencé loqati banlieue bi looloo waral sax baat bi dee ndax banlieue bi ci boppam fu ma romb dañ naan Idi yaa ko yor Idi réew mi dafa soxla roue de secours yaa ko yor <laughs> moo taxit may wax ne jaar bi ma demoon jaar dem ziyaare kilifa gu tedd gi di Serigne Seydi alxuraan nga xam ne wax dëgg yàlla ab waaliwu yàlla la te sama kóllëre moom du kóllëre élection du kóllëre li nga xam ne mooy prévention élection dama fa jaaroon ndax seen siidi alxuraan xam-xam dafa màcc ci diine di nitu yàlla ñu waxtaan ci tolluwaayu réew mi waxtaan sama digganteek moom waxtaan tamit ci xew-xewu àdduna waaye jaar gi ma fa jaar noonu rek ba pënd gu wuri ndax kilifa diine bu mbooloo toppee ci ginnaawam mu am ay taalibe yu ko déggal ma ñëw fa ñu berndeel ma kenn tuutilu ma kenn sewalu ma ba ko presse bi xëyee bind coole na jolli ñoom nelawatuñu <laughs> te man maay idi borom Cees bëri ay pax ji ko nag bu ma neexee dugg fii génn fële waaye ma koy xamal moom Abdou Karim Sall bu fekkee li xale yi wax da dafay bëgg am bës ci sama kaw ci jaar-jaar ba ma jaar kër Seydi Alxuraan loolu dafa nekk loo xam ne du ko amee ci man ndax sëñ bi dafa maanu te ba mu maanoo du tey barki Demba Njaay sax waa yaa ma naan tooñ ba ma rombee ay jigéen bi ma jaaree jag saaw ak jàmm gën benn baraak ak koñ boobu ñuy wax baaru njaago nga xam ne guerrier dëgg fay xuus bëccëg ndax koñ boobu nga xam ne mooy Baaro Njaago ab politicien naru faa xuus guddi ndax ku fa xuus guddi bu ñu la xuus jàpp boo amul fit da ngay daw te Macky Sall nag wër na Sénégal waaye jaarul jaarul koñ boobu ndax koñ boobu da ngay nekk nandite nekk booy Thiès ndax booy Thiès boo gis rek xamal ne nandite la léegi moo tax ma wax leen ne ne maa ngi commencé orange ba ma commencé sol sama. promotion boo xam ne mooy émergence couleur orange bi amoon ci moom laa fas yéene déclaré ci Sénégal te ngeen bàyyi xel ci man ñoom dañoo jaaxle ba tey ndax bi ñu waxee coow Lamine Diack bi ba tey ñu daal di koy war a réglé réglé wuñ ko ñu bëgg maa tuumaal xaalis boo xam ne defuma ko laalu ma taxuma tiluma jëluma ànduma xaw ma fuñ ko doon fekkee waaye ma leen di xamal jusqu'à l'extinction du soleil fekk jant baa ngay génn ba ba muy fay lu ñu seet ci kopparu Idrissa Seck maa ko liggéey maa ko ñàkk ndax ndey tedd ko li am Jeune Afrique nag bu doon may Macky Sall damay dem lijjanti loolu waaye doo lijjanti la ma jaar ca banlieue ba ndax bés boo nekkoon président de la république bés boobu ci boppam man président Idrissa Seck su ma ci nekkoon man damay wax ne sénégalais bu yor Jeune Afrique soo ñëwee ñu jënd ko ñaari junni taal ko waxuma bi am sax waaye yi yeesu boo ko indee ñu taal ko Macky Sall am na lu mu war a lijjanti na dem lijjanti loolu loolu laa yaakaar ne c'est plus les actualités des choses au lieu de créer des débats inutiles waaw fu ma romb na xuus ñu taasu ne idi yaa ko yor oto day am roue secours yaay suñu roue secours su ma aawul ñu ne li may wax safu leen moo taxit baat ba dee <laughs> moo taxit bi ma xuusee géejawaay romb dem benn baraat dem assisté des enseignants wàqikaan Pikine tournal dem amoo kaat ñu ne ma idi yaay rowu sa koor oto bu amul rowu sa koor du dem yaay rowu sa koor idi yaay rowu sa koor idi yaay rowu sa koor oto bu amul rowu sa koor du dem yaay rowu sa koor sa koor xayru sukkur oto bu amul lu contentement mbokk yi ñu ànd ak euh, ci dédicace yi di wax joyeux anniversaire à Mami Badji décoratrice TFM de la part de toute l' équipe de Kouthia Show moom Mami Badji ñu koy wax joyeux anniversaire di ko souhaité fan bu gudd ak wér-gu-yaram yàlla defal ko jàmm ak wér-gu-yaram may ko tamit yaram ñu koy nuyu bu baax euh, di wax joyeux anniversaire à Modou Faye maître tailleur looy ree Mami Badji joyeux anniversaire yàlla may ko euh, wér ak wér-gu-yaram mayaat ko yaram ndax moom bu déggee dina xam ne am na yaram am déet kon Modou Faye maître ñu koy wax joyeux yàlla guddal fanam may ko jàmm ak wér gu yaram ñu koy nuyu de la part de sa fille Mousli Faye ñu koy nuyu tamit moom Anna Dioum euh, et son fils bébé Cheikh depuis Paris. Euh, Serigne Cheikh Gueye taalibe Serigne bas Baara euh, mu ngi woo Kouthia nag ci nganale Serigne Bass Baara le 4 avril 2016 ca Guédiawaye kooku nag xam naa ne nganale bu doy waar ndax xam naa ne lépp luy yàpp. Euh, jëmee ko ci yàpp bu dagan di xar béy ak gëléem picc ak euh, euh, lépp luy naaw te dagan ci gémmiñ rek te lislaam na ko dañ ko fa def ndax ci berndeel boobu nganale bu mag lay doon kon incha allah yan ci yàlla fa ñu fekk ko jàmm ak ci Serigne Cheikh Gueye taalibe Serigne Bass Baara waaye dini tamit waa salon Daba salon maam faatim Fall Sophie Abou Pene de la part de Go Fall taw feex su Kabek Euh, ligne 64 euh, Tawfekh Sukabek ligne 74 restaurant Serigne Fallou Aïcha Niang ak géwalo Sukabek yëpp de la part de Abdou Fa Gueye foofu xam naa ne ku fa dem da nga lekk supp war nga lekk lu neex euh, dédicace Kouthia waa Ziguinchor Casamance Gumel Bachir Diallo et sa femme madame Diallo Bouba Bodian et sa madame Bodian Fat Fati ak adjudant ba commandant brigade de recherche gendarmerie ñu ngi koy nuyu ak Chérif Mansali Mamadou Kébé depuis Ziguinchor ki nga xam ne mooy Thierno Seydou Nourou Ba chef religieuse foofu ca Paté Gallo à Île Île euh, Amorphile département ñëw ci moom léegi ak Abdou Sidi Ba suñu xarit ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram Abdourahmane Ly responsable politique APR ca Rouen ca Normandie yàlla ko yàlla defal jàmm ak Awa Ndiaye son bébé depuis Munich ca Allemagne nuyu nañ ko Serigne Sam Mbacké la Zamba ñu koy nuyu waaye tamit di am mbégte ak contentement bu yaatu yaatu yaatu euh, ci képp koo xam ne Serigne Amsa Mbacké euh, ñu koy nuyu tamit euh, di xaritu ki nga xam ne mooy Mohamed Victor bu leen fàttali nag le 16 avril moom Serigne Amsatou Mbacké fils de Serigne Soubérou Mbacké Baye Fallou borom daaru ca Pikine tali bu mag moom ñu ngi koy nuyu le 16 avril incha allah mooy doon cantam bu mag bi nga xam ne nag wax dëgg yàlla yàlla ci yàlla may ñu egg ci jàmm teewe ko jàmm diaspora wax naa leen ko magazine la boo xam ne inaa Diawara moo nekk à l'affiche numéro 64 bi nag boo ci xoolee alaaji Diop euh, mu ngi ci boom euh, alaaji sëriñ bi ci boppam mu ci waaye tamit tendance ci nekk aji assu euh, xale bu taaru bi macha allah ñoom ñëpp ngi ci ak ay façon non seulement couture ak coiffure ñoom daal lépp lu ñu boole bu la neexee ñaw bi nga intéressé la bopp bi intéressé la ba ca daal sax boo yëree dañ nga ciy gis ay daal yoo xam ne sax danga xam ne nii nga koy marier ak nii nga koy solee ñoom daal diaspora dañ lay wan yoon bi nga xam ne mooy tendance couleur ak style il faut l'acheter c'est sorti pour vous les Maliens les Gabonais les Nigériens tout ce qui parlent wolof euh, français euh, zone francophone euh, c'est la sortie de magazine mode et style diaspora euh, vient d'arriver achetez-le c'est pour perfectionner vos collections et vos styles euh, Ina Diawara euh, félicitations pour l'affiche defe naa ne macha allah yàlla na doon seen diglaay bu fekkee ne da nga ciy jaar am borom kër jërëjëf kon nag léegi dañuy dem seeti ki nga xam ne mooy Macky Sall mu tontu Idrissa Seck tontu Madické Niang bi fi jaar. yan lu mel ne xeme teg leen ko waaye Strong sec tamit ñu ngi fi baara musoo moutarde poobar ak diwtiir ak kaani saf na lool saf na sàpp léegi nag xaaral ca Cerno euh, euh, ki nga xam ne moom mooy Cerno Seydou Ba euh, waaliwu yàlla la sëriñ la waaye buy julli ginaar bu rombee sax concentration bu ginaar saxita dina na giraat na ginaar gi noppi loolu yéem na ma lool lool lool ma am ci ndigal nag ci pour ma def ko loolu ndax nee naa ko sa julli moom bu tàmbalee balaa muy jeex kat boo ko doon xaar quatre heures nga jëm ndax lu romb rek day taxaw dagg julli gi ne na loolu noppi muy soog a julli man ñamal leen ci tuuti ñuy soog a dem ci ki nga xam ne mooy Macky Sall ey mati ko jat cagal fii basan bisimilah ay ak man bisimilah allah kuy ree noonu ey eh, baale ma commencé julli bisimilah rahmaan eh njaddu njaddu eh njaddu eh bisimilah mu leen noppi kana Cerno mooy julli kat eh bisimilah rahmaan rahim eh njaddu njaddu yee eh, eh, mu leen noppi eh, <laughs> nag dañuy dem seeti ki nga xam ne mooy président Macky Sall moom ci boppam mer la def waaye tamit am na lu ko naqari nañu seeti ma Sall sant dama jooy ba sama baat bi dee dama am lu ma am lu ma metti maa ngi soog xam ne am na ñoo xam ne dañu nekk ci opposition bi pour profiter ci ay situation bëgg maa jaxasan askanu senegal du ma ko nangu man musuma jéem bi ma sëriñ bi wooyee ki nga xam ne mooy porte-parole sëriñ bi mu ma fekk si Addis Abeba ma jël kaddu mais na yàlla bu nar a defar dafay defar lépp mu baax te pourtant dañu waxoon ne benn président du jël sa téléphone dugal ko ci biir mais mu mel na yàlla daf ma defal sutura ma jël sama téléphone dugal ko sama poche Bruno Diatta ne ma sa téléphone mu ngi sonné ma ne ko kuy wootee mu ne ma naa la xamal ñaar téléphone bi urgence la dafa mel ne Sénégal am na problème ma xool muy waa Touba ma génn boobu Paul bi yaa mooy wax na li nga def nii du yoon Alassane Ouattara def parce que ñun ñëpp dañ jël suñu téléphone teg ko ci bunt bi mu jël téléphone dugal yi mooy yan ma xam na yàlla moo nar a defar ma jël téléphone bi muy waa Touba ñu ne ma Jeune Afrique dañu def lu ñaaw wala lu ñaaw lu mel nan ñu wax ma ko xaaruma dama jël sama téléphone woo directeur bi muy naka-nakal naa ma loolu kañ la ma ne ko xoolal du ma sa morom dama bëgg ngeen ko nu mu gën a gaawee na ma ko waxee ak nañ ko dindee simila ak saala waaye ñi nga xam ne dañ ci bëgg profiter di lang di jéem a jaxase di ma jéem a jaxase askan di ma a jaxase ak yoonu murid du ma ko nangu tey du ma ko nangu ëllëg ba may jëf-jëf ji dama ko jëf jëfu taalibe ndax su ma bàyyi su ma woowee na ma am na lu ko naqari xam nga ne doom ji ci boppam dina am lu ko naqari maa ko faj ci si faj ko ci tàngaay bi maa ko wax te dinaa ko def man nag lu ma wax dama koy def bañ naa ko bi ma nekkee étudiant dem ba màgg am naa doom dama koy faral déglu muy déglu ay morceau rap mais nee naa ko ci rappeurs yi xumaan moo ma neex ndax maa ko dégg mu a ko maa ko def maa ko def ba mu neex ma maa ko def waaye man tam maa ko wax danaa ko def bu soobee yàlla Jeune Afrique dootul dugg ci Sénégal yemuma foofu sax waaye képp koo xam ne diplôme nga. soo ko soxlaa nga génn Sénégal lii ko feneen waaye dootul dugg Sénégal ndax lu neex sëñ Sidi Makhtar lu ko neex moo ma neex lu ko naqari moo ma naqari te dama ci taxaw borom dëj bi mun a jooy dëjëm ñaareel bi ma leen di xamal ne journal boobu may ma sama benn ministre ak képp koo xam ne yaa ngi ci parti bi nga koy xool wala nga koy yër ku koy amoon na nga ko génne te bu soobee yàlla du yàgg. fii ak semaine bi dinaa def déclaration buy wane ne joxe bés boo xam ne dañ koy toog ñaan ko jë boo xam ne dañ koy def spécialement ñaan wàcce ay kaamin wàcce ay ay ay ay ay ay mbir yoo xam ne bu dalee ci kaw Jeune Afrique dinañ xam ne ne Sénégal yëngu na kenn duñu yëpp bi ñuy metti démb bi ñuy metti démb ay maam maam El Hadj Malick maam Serigne Touba Baye Laye kilifa diine yëpp dem ñoo jonko dalal tubaab kon tey bu ñu demee ba nekk si donkaas gi ginnaaw yàlla yonent bi ñoom la Serigne Touba maam Serigne Touba figure historique la ñoom ni ñuy waxee seen ay De ak seen ay ay Hitler seen yooyu ñuy jël ko jàngal nit ñi pour ñu xam ko ñun Serigne Touba mooy suñu héros maam Alaaji Malick mooy suñu héros Limaamu Laay mooy suñu héros kon duma ma ko nangul tay pour ñuy jéem a suufeel wala ñu jéem a sama loxo ñi nga xam ne ñoo ci profité nag di jéem a indi politique pour yàq dama ne bu ñu may xaal ci géej man du ma ci géej ci dex laay fëlee moo tax ma ne lu maroon nañ ma xamee woon tey dama sol lu xonk cur def suma caaya pour xamal leen ne man du ragal du ma tapet du ma buxut te yow ki nga xam ne yaay directeur zone afric maa ngi lay xamal ne. sama bët ak sa bët ak sa tànk sama tànk su ko su ko noba daan nga xam ne ne duma président Yamar nee nañ yàlla may jàmm li ma leen wax na du yàgg fii ak weer ñu dem ci semaine bi dana jël bés boo xam ne damay taxaw dem ba Touba dem ba si sëriñ bi yeesalaat sama njabal ak sama gëm ba pare joxe ordre pour ñu wàcce manifester dox waaye du su politique suñu digganteeg suñu borom ak suñu digganteeg suñu sëriñ di sëriñ Tuubaa nga xam ne mooy suñu héros waaw dama ne bu ñu tëree nelaw tey ba ñu neex war ñu tëdd nelaw bay gént ñoom ñoo ko liggéey ndax tubaab yi bu leen sëriñ ba baarewul woon wala bu leen bàyyoon ak seen pexe kon tey réew mi waaye kon tey réew mi jambaajo kon tey réew mi jambaajo kon tey réew mi nekk lu lu waay neex maam alaaji Malick Limaamu Laay Baay Ñas kilifa diine Omar Foutiyou Tall dañoo xeex tubaab yi ba am tey suñu liberté kon man kenn du ma jaxase kenn du jëm jaar ci man pour jéem a dox sama diggante ak sëriñ si affaire ñaari tur nag maa ko la sama bopp ay na góor ak na jigéen ci boppam laa bëgg mu jeex ci dëkk bi waaye tamit peccum liir bu neexee yaay na tee ci mbagg ja te lay xoolaat seen programme sabar yi ak foo yi wane ko aj ko dañ ko bàyyi waykat yi sax désormais ku waaye te dañuy xool li ngay way ci biir waaw fekk suba ngeen wol ma Pape Diouf parce que dégg naa li wax ci maalaw bi mu leeral li mu taasu ci biir fomp dañ ko fomp lan lay fomp moo war war lu naa ko lijjanti dégg ngeen loolu lañ ko lijjanti parce que affaire yooyu ca lay commencé way leen def ne Youssou Ndour way loo xam ne ëllëg buñ ko tegee kenn du rus day am sens na leer Macky bëggul lëndëm nay leer nay leer nay ci xamul tey Sénégal yu bëri dañuy jékki-jékki gis ma yàlla dafa ma am yaram macha allah bu le ma catu man su ma meree damay néew yi. dëgg la funki su ma meree damay mel na xal lu xonk laa sol kon su ma neexee funki su ma neexee mer man Sëriñ Tuuba kenn du ko ko def fati bu ñu duggee ma rap Jeune Afrique rap tëj rap tëj xool ma tëj ku liir ma rap ku tëj ma ibbi ku ibbi ma tëj kenn du ko jaay kenn du ko fi xoole Jeune Afrique ci biiti Macky Sall ci digg kenn du ma yëngal su ma neexee mer su ma neexee ma mer ha ha ha ha